quoi le cayenne exactement alors nous avons dit que le voir si l'un ni tam t'es dit amalina comme comme dit conseil des ministres bi la diamant clé n'a pas a comme 14 14e 14 billion que l'on a dit amal afan nous avons aussi des nouvelles nominations à dans ce sens mais tout d'abord euh, bi passé du pouvons donner un que ni 81 euh, voire 82 nominations c'est bien good afan bon d'un concrètement acte et dit l'inachemne comme dit conseil des ministres nous qu'elle a amal waaw foofu si daanu pale xam naa ni communiqué bi dinañ ko daa jotee ni fii ak si ngoon incha allah alors est-ce que benn guddi euh, mu ne si amal li nga xam ne que moo di euh, quatre une euh, voire quatre-vingt-deux nomination concrètement dama ne moo tax ñu ne des fois ay ak jumte di am si li nga xam ne que di nomination yi ñii naan ñii am nañ diplôme ñii naan amuñu ko ñii naan ñi bésam leen yem ñii naan bac sax amuñu ko et tant d'autres et tant d'autres du quatre-vingt-une nomination nga wax man bu ma sañoon benn guddi mu am deux cents nomination Hmm. waaw déggoo ma de. bu ma sañoon man. Hmm. benn du mu am 200 nominations du yéen quatre vingt et une nominations ngeen wax man bu ma remaniement du benn conseil des ministres mu am 200 nominations. Hmm. tu sais pourquoi. Euh, yéen a ngi fàttaliku keroog Papa Alé Niang ba muy wax ni que euh, les les les choses terre à terre sont devenues urgentes yéen a ngi fàttaliku loolu loolu il faut que nga am il faut que nga am administration bu pare pour nga mën a jublu jublu ci liggéey bi il faut que nga am administration bu pare bu complet pour nga mën a def fii dara parce que le peuple sénégalais c'est un peuple exigeant c'est un peuple très exigeant donc boo gaawantoo ci man ci ci ci nomination yi di jël benn benn benn benn kañ ngay pare parce que ah da nga nek di deglu sénégalais yi lu ñuy wax. mais pas deglu len sax. non mais lool la. sénégalais bo nomee dañuy wax bo bañé nomee dañuy ni dafa yé keroog bu ñuy former le gouvernement di jël 72 heures sénégalais di compter kan la ñuy former gouvernement mu ngi yéex de affaire bi dé de est-ce que Ousmane Sonko est capable de former un gouvernement. Hmm. est-ce que Diomaye est capable de former un gouvernement. formation gouvernement bi de ministère sénégalais tok di compter heures yi dina heures. 48 heures formé wuñu gouvernement 72 heures formé wuñu gouvernement est-ce que ces nouvelles autorités sont capables Nous ñu mis jël ans temps di def consultation di nommer du sénégalais ñoo yàkkamte pour nous nommer ah nous ñu ngi nommer ñu naan non dafa bëri sénégalais il faut que xam tamit li ngeen bëgg formation gouvernement ñu ne dafa Nous formons formé gouvernement Nous avons balee administration de ko balee de di nommé di andi say nit seen nit pour ñu mën a liggéey soobulu ci liggéey bi ñu naan encore dafa bëri. mais nomination est-ce que dépend na conseil des ministres. dama né nomination nomination nomination la. dépendul du conseil des ministres. chaque jour dama ne chaque jour ma wax la ko. ok nee la nomination dépendre ñu ci conseil des ministres. chaque jour nomination président de la république mën na nommer chaque jour. Hmm. mën na toog ba le jour ni mu gënné décret ni mu jaar ci le journal officiel de l'état du Sénégal ni que même nañu Doudou ba paré ñu partager ko ci les médias. Hmm. nomination xarul conseil des ministres. mais le pourquoi ñu bu ko xaarloo ci conseil des ministres. mais conseil des des fois non non lolu tradition la. Hmm. il faut nga xamni lolu tradition la. ça ne date pas d'aujourd'hui les conseils des conseil des ministres bu da fay ànd ak nomination lolu tradition la lu ñu fekk fi non si non si des fois am nomination Dieu def na fi trois yo xam nomination mais loolu ce c'est pas forcé mais c'est une tradition Bon, comment ne ñu bëri bu conseil des ministres ils attendent après au-delà de ça nous dégg une nomination mais il n'est pas dit ça conseil des ministres ou une nomination ma le président de la République peut nommer chaque jour donc bon je ma conseil des ministres le par rapport à la tradition Sénégal amaana loolu la ñuy faral di hmm. ni que nomination yu conseil des ministres la jaar mais il n'est pas dit forcément ni que da conseil des ministres pour nommer donc il faut que sénégalais tamit nous en dal nomination fay am ala kulli al mm. régime bu da Fay nommer ay nit de confiance da dafay nommer jusqu'à l'année prochaine il va continuer de nommer il faut ngeen xam à administration bi yato da fay administration bi fay yato te gis nga ay am na ay nit yi taxaw di naan ñii donc seen projet ay projet naxe mbaay la amuñu projet ba léegi mënuñu fexe ba teg ci taabal bi gis projet bu ñu doon wax mais loolu boo amalee administration naka ngay taxe naka ngay tegee projet. administration bu dëgër. il faut que nga teg administration bu dëgër d'abord nga teg projet bi administration bi wëyal muy gi affaire bi jaar yoon mu cohérent mais bu fekkee yow da am di sa projet. parce que day andi projet mu fekk fi administration Macky Sall ba pare jël projet bobu jébbal ko administration Macky Sall bobu lolu c'est du sabotage. ñom di lañ ko saboter di lañ ko saboter donc pour que Pastef mëna a sam projet bi ci table bi mu mën a mu mën huiler il faut que ñoom ñu continuer di name ci administration ba mu jeex tak ñu to ñu doog andi sam projet tek ko ci administration nee leen doxal leen suñu projet ba ngi ni mais ce n'est pas comme ça. Même si même je suis d'accord pour la rupture systémique, parce que rupture systémique, il faut que Sénégalais sentent que partout. Sénégalais doivent sentir cette rupture systémique-là. Donc, rupture systémique, il y a des commencer Il y a tellement de cafards qui dorment dans l'administration territoriale du Sénégal.

nous mënuñu nous accepter ci jamono Macky Sall bañal c'est là où je suis pas d'accord voilà l'égoïsme c'est injuste Nous, nous nangul ko Macky Nous nous bañal ko Nous hmm. li gis Nous wax société civile société civile influenceur ay anciens journalistes yi wax les nominations de Diomaye parce qu'ils sont animés de mauvaise de mauvaise foi. elle ne peut pas donner de leçon nomination na commencé si directeur général bougan moom lu tax moom waxul ci mettre au frigo bi muy mettre au frigo ay journal ay naataangoom journaliste benn dama ne moom na wàccu loolu xam nga bay wax bay wax ci nit day fekk yow yow nga set bay la niw sangul dama dit diw dama sangu day fekk yow nga set nga présentable mais yow setoo ngay bëgg wax fàllu demal sangu di jéem a wax ni fàllu moo la gën a tilim alors que sangoo journée bi yëpp yaa ngi tilim xasaw xeeñu xund

est-ce que mon sañ la wax bougan le wax voilà l'égoïsme pourtant Diomaye c'est le président de la République de tous les Sénégalais institution bu au Sénégal Mom sañ na taxaw Diomaye que sa nomination dafa entachée de de tellement d'erreurs mais pas taxaw de son directeur Bougane li def voilà l'égoïsme voilà le Sénégalais le la du coup Sénégalais c'est que tilim ngay dem kër jàmbur di joxe ay ord yéen doo leen banee fii xanaa fii amul ay nit alors que yow sa kër bi nga jógee mu ngi tilim ba c'est pas possible nga dem kër jàmbur fekk ay doomam yu jigéen di seetaan télé nga demee yéen xanaa doo leen jóg bale ana ay jigéen yuy seetaan télé doo leen wàcc ngay bale ñu ñu fédéré alors que yow sa kër. sa doom yaa ngi nelaw ba léegi ba midi. Ndeye Fatou Ndiaye loolu lay def. Hmm. bu fekkee da nga ne jomaay sa nomination bi baaxul. dafa bëri dafa bëri njëkkee ko ci Bougane nekk ko ah. bàyyi di mettre ay journaliste au frigo. dañoo am ak ak yellef contrat la ñu signé ak yow. mais sañu ko wax Bougane. alors bu ko waxee tey Bougane du fa du fa yendu. ah bon oui mais c'est ça. Hmm. bu nee Bougane bu jaakaarloo ak Bougane ci micro boobu ndey faatu Ndiaye ne ko Bougane hey ne ko directeur. sama naataangoo journaliste yi ngay dugal au frigo je ne suis pas d' accord ne serait-ce que naka ne je ne suis pas d' du fa yendu du fa Hmm. voilà donc comme comme ñoom ragal nañu non dañoo ragal Bougane kenn ñemewul Bougane da ngay gis ay nit yi dafa revue de presse di tudd gëm sa bopp mille fois ci revue de presse Fabrice Ngema di tudd bu bopp les jàmbaar mille fois loolu mooy lan est-ce que loolu liggéey liggéey taskati xibaar. bu sa gëm gëm sa bopp lay jàmbaar ci revue de pression da ni que waji il sous des ordres wala dafa far. sa fois fois de bi journal il faut arrêter ça même donc man nomination na jamais continuer di nommer il faut pas écouter les gens gis nga sa administration. yow yaa xam lan la capable yow yaa xam lan nga soxla ci sa administration gis nga ñuy wax ñuy tey dafa bëri bu suba bu ñu échecee ñaanuñu ko yàlla ñoom ñuy njëkk a dem ci média yi di dañoo échec dañoo def lii pourtant ñoom ñoo ko ne nomination yi dafa bëri journaliste yi taxaw fii ak ay chroniqueurs yi taxaw tey di ne jomaay nomination yi dafa bëri bu subaa bu jomaay échoué ci ak administration ñoom ñooy ñëwaati di ne y manque de personnel. yi ñuy yoo xawma lan dañoo échoué dañoo lajj dañoo def nii donc Diomaye que ça soit Diomaye que ça soit Sonko. Mm. bu ñu déglu ces gens là. kenn falu leen ku mel ni Arfan kenn falu ko moom liggéey taskati xibaar lay def toog ci médiam di wax donc bu ko déglu. Mm.

bu fekkee dafa jàpp ni foofu poste boobu war na fa nommer nit nag continuer de nommer pendant cinq ans même il peut continuer de nommer loolu mooy un régime tout ça chamboule tout le temps et vous voulez dire que oui 81 81 nomination ci Goudi de dafa bëri bu ma sañoon mu def 200 nomination ci benn Goudi. oui mën naa ko wax déjà erreur mi ngi am si. dama amul erreur erreur amul dama ne musul am erreur bu amé erreur jomaay nomew ko jomaay nomewul erreur be. Yacine Fall ak la fille de Yassine Fall jomaay moo leen point il n'y a pas d'erreur le président de la République peut nommer deux membres d'une même famille Vous avez que ñoom dañoo am compétence au te dañuy il peut nommer deux membres d'une même famille le président de la République peut nommer deux membres d'une même famille euh, il n'y a même pas d'erreur c'est clair c'est clair donc bu y a une erreur keneen moo ko def mais c'est pas à la à la hauteur de ce hmm. wala Ousmane Sonko y a même nañu nommer Fallou comme directeur fallu jël litam wala domam mu nomé ko loolu erreur am la donc buñ ko remonté meun nañ ko corriger mais quant à le président de la république <laughs> non il y a pas d'erreur envers lui mais kan moo ko jox kan moo ko proposé. kan moo ko sûrement. déedéet Fallou dañuy posé ay questions déedéet fallu. Il da nga nekk di wax li nga xam non dañuy posé ay questions. Fallu, il y a des gens qui li nga li nga xamul. comment Yassine Fall peut proposer sa fille au président de la République pour mon nom ko. waaw dañuy posé questions non c'est faux loolu c'est des alibis c'est des propos fallacieuses amol. loolu amul Damane. ne Diomaye moo Yassine Fall nommé quoi, au sein des du ministère des affaires étrangères. Hmm nous gis doomam ni que doomam dafa bokk ci seen combat bu ñu doon xeex te ñu gis doomam balaa nomination dafa am lu mu teg ci Sénégal di ko wëyal di hmm. ko liggéey di employé ay nit hmm. mu gis ko mu xarañ lool ci domaine am tout simplement alors c'est clair c'est clair même bu fekkee man man maa ni président de la République ma gis le mu am compétence doomu fallu am compétence ma am sañ-sañ alors c'est que le faire alors alors il faut arrêter ça aussi exactement donc oui non. que euh, par rapport à li nga xam dit euh, euh, le conseiller des ministres tey jii nag daal di yem ak li nga xam ne que mu di quatorzième bi yoon ñu koy ko présidence ñi de ma talat incha le communiqué de Mustafa Ndiack Sarré daal leen koy dëgtal.